wax leen yéen ñëpp alhamdulilah. yéen ñëpp bàyyi nee nañu alhamdulilah rabbil alamin. gis nga su nekkee ne da ngaa xam yàlla sooy jàng saatul faatee guddi yaa ngi tusngalu ngir rafet ngir yëg ci ma xamay ko wéy waaye su nekkee ne xamagoo yàlla da ngaa feebar yaa ngi tusngalu pour ne yow da ngaa wànnante da ngaa war a wér mooy xamoo yàlla yaa ngi wër yàlla yàlla daf la war a feeñ daf la war a def te jël lii ngay wér du sonn lool kuy tudd yàlla te xam fu yàlla nekk ak kuy tudd yàlla te xamul yàlla fu mu nekk ñaari tudd yooyu du bokk. ku tudd yàlla te xam yàlla ak ku tudd yàlla te xamul yàlla du benn li tax li tax mu am solo da ngay def lay yóbbu ba sooy jaamu yàlla yëg bànneeku jaamu yàlla gi ndax kii jaamu yàlla te xam yàlla bokkul ak kii jaamu yàlla te yàlla bàyyi ñes nag li ko indi mu yóbbu la yow lem àll gi jaar sa digganteeg sa borom yóbbu la ba nga yegg si yàlla ba sooy jaamu yàlla nga yëg bànneexu jaamu yàlla sa xol bi mujj nekkaat ni màkka màkka yàlla ne na tijba ilayhi samaratu kulli shay maanaam soo demee fir wi bu nekk danga ko fa fekk sa xol bi boobaa soo yeggee yàlla loo gis yàlla ci def te jël lii soo xoolee nit ñi nga am ci ndollal ci yàlla soo xoolee caméra yi nga am ci ndollal ci yàlla soo xoolee butéelu ndox bi nga am ci ndollal ci yàlla soo xoolee yaa ngi dégg ne jasneer yi soo xoolee macha allah micro yi loo xool rek mu indi la natija natija googu moo ngi jóge ndollal bu jóge ci yàlla yow li nga moom li nga moom mooy fikra bi mooy xalaat bi nga sànni ko ci géejub yàlla gi yàlla jox la résultat bi loolu lay xaatir xaatir mooy résultat gi la yàlla jox yow la nga jël sànni ko ci pays bi yàlla gi pour nga indi résultat loolooy mbaal bi loolu la ñuy tuddi al fikratu fikratu mooy xalaat bi waaye xaatir bi mooy li jóge ci yàlla ñëw ci yow moo tax Baye Niass nee na maa minhu ilayka xayrun mimma minka ilayhi la jóge ci moom ñëw ci yow moo gën a baax li jóge ci yow dem ci moom ndax yow li jóge ci yow mooy xalaat bi mooy mbaal bi dañ koo sànni waaye jën yi mbaal bi indaale mooy xaatir bi loolu moo ngi jóge fan moo ngi jóge ci yàlla kon bu boobaa nit ñi dañuy faral di jaawale باين يسدفن تربي بيني نجد دفني أرى شيئا يأتي في المستقبل فكأنه عندي بمنزلة الماضي هو أنه من لم يسلك مسلككم هذا يسلك ويندم أمنا أفير بينيو دفا لير تمن بمن لباسنا تيكسيبون نيلو قال الله من ما يكون تربي والخميال كوتي والسري تربي الخميال دفك كم نين كدفع دم بب بب فادكم مدادي دي سيال غيب أن الكل بكل كل كرو أنك غيب كذاك غيب أن غيرك وأن ذا تصله للمحاضرة مع الإله ظاهرا وباطنا سوك دفل من دنك دف رتل تخون دفو نيني لي انتار دل موي خمو يالا رك لو ريكا انتار دل سو دي جي نيو باي نيس موي سوليسيون فريول دارل موي باي نيس موي نيو پور خمال نيني يالا تي نيني في خمو يالا دي نو تار دل كو خمو يالا ريكا تار دل سما سيري شاب دلائي جار مو نيو نيت كي سو نيو بيرك تخاو نيكو مكلف point d'interrogation mom ci kanamam moy ana yàlla su nekkee def na sàkk bàyyi la nga war ko wëri waro to ki la sàkk xamo fu nekk mu su nekkee def la sàkk nekk ak yow nga waro xol fan la fété ci yow ci kaw la wala ci souf bir wala biti chamon wala day ndeyjoor mo xol fan la yàlla fété kon fofu ngay déparé pour wuti yàlla xam ngeen tarbi bi su mënoon ñak kon sayyidna Ali du toog yonent bi diko ko wax dullani ala aqrabi turuqi ila allah damaa bëgg nga tegtal ma yoon bi gën a jege pour ma dem ci yàlla di nga yàlla di yónni boobu Aliyu moo ngi ci loxo Aliyu Seydina Rasulullahi moo ko yar yem ci yàlla moo ko yar Aliyu musul sujudal xërëm Aliyu musul naan sàngara Seydina Abubakar ak lu muy màgg-màgg sujudal na lu dul yàlla ndax balaa moo tuub Seydina Abubakar ak lu muy màgg-màgg naanoon na sàngara Seydina Umar ibn al noonu sujudal na lu dul yàlla naan na sàngara Seydina Usmaan naka noonu waye ali mom yonent bee ko yar musul sujudal lu yàlla musul nan sàngara te mom moy jiitu ñëpp ci yàlla ndax nee na sababtukumu ila l islaami turran sabiyan ma balawtu awaana xulmi yéen ñëpp maa leen jiitu islam bo mo ngi wax ak muawiyat ibn abi sufyan xamoo man may kan sababtukumu yéen ma len jiitu ila l islaami turran yéen ñëpp sabiyan boobu xale laa ma balawtu awaana xulmi amako ma sax 18 ans koku màgg ak yonent bi mais su nekkoon ne tar bii mën naa ñàkk dañuy wax ali comme que yow yonent bee la yar bi ko yàlla di yónni yéen a nekk ci sa xol bi ñaw na xam nga lu bëri soxlawul ngay tar bi waaye dafa wéet ak yoon ci yàlla Muhammad mu ne ko dullani ala aqrabi turuqi ila allah foofu mooy point de départ bi ndekete bàyyi li ko indi li gën a am solo ci àdduna moo indi bàyyi ñu sodella bàyyi ba muy ñëw rek muy wax ak àdduna bi yoo préparé leen li ma indee ngi ñëw faydu faydu baat bi euh, ñetti leetar la waaye dafa rëy lim ëmb ci ngeneen kenn mënu koo firi ba àdduna jeex dañuy firi rek ci faydu soo firee ba sonn bàyyi waaye li faydu ëmb kenn mënu koo motal mhm. ndax euh, dafa mel ni gan faydu sax soo ko wëlbatee baat bi dayfu la lay jox dayfu mooy gan mais yon ci yàlla ibrahim la yàlla joxoon gan nga ah, hal ataaka xadiisu dayfi ibrahim al mukramin alxuraan est-ce que yow yonent bi yegg na ci yow xibaaru ganu ibrahima ya day ci Ibrahim alxuraan a ko nekk ko day fu mooy faydu faydu dafa ñëw nekk gan parce que nit fay bi ñëwee dafa mel dañoo jomb lii moom du fi am lii du fi xewee benn mbokk taalibe bu jëloon ci man tarbiyu mu ñibbi yaayam ne ko gis nga bu leen ñu sonal fii seen sëriñ moomu bàyyi ñes manu fi xam lu sëriñu diw indiwul woon ak sëriñu diw xamul woon mu tudd benn sëriñ ci senegal <laughs> xoolal loolu gis nga affaire bi fay bi dafa ñëw mel ni ñaa ngi dégg euh, lu ñuy sotti jëlé ko ci yàlla jëm ci pey bi yàlla barade bi xolé ko barade bi ca le wala ci deuxième ba ci troisième parce que mbir mi faydu la dalil tu bihi yawman yawman wa wa wa ma huwa illa wa وما هو الا والنبي بنا يسري الى حضرات لا bi بسرها wala ولا li zayd wala امر ataya bi le wala deuxième beeg troisième bi yëpp fayda rek lay junj gis nga mbir mi barade bi suñu sorté ko mo il faut mu am yëngu-yëngu kaas yi day laalante di yëngu muy laal palaat bi barade bi di yëngu kopp maanaa li ngay tije maanaa kubéer bi day yëngu kaas yi day yëngu sotteeku bi tamit sotteeku day am biir wi ala kulli faydu moom fu mu dal rek day am yëngu moo tax bàyyi dafa ñëw rek ne faydu bi ñëw na rek am ñoo xam ne dañoo ne ah saddaqtu bil faydi minka mus ataytu wa lam yunkir li faydika indi dahra gayru saqi wekki ko wekki ko mu ne saddaqtu bil faydi minka mu ne dëggal naa sa faydu bi ceexaan yi xam nga ñëw ci yàlla rek am solo ñun dañoo war a sant yàlla bàyyi dafa woote am ñu ne déedéet bàyyi dafa wax ak yàlla ne allaha qultu wa inni qad taxazaba li man qad arafta fa farrik shamlahum wa sulan allaha qultu man allah rek laa wax yàlla rek laa wax bàyyi bàyyi nee na moom waxul dara lu dul yàlla rek problème bi yëpp allaha qultu wa inni qad taxazaba li man qad arafta gaa yooyu yëpp ne du fi amee te yàlla nag il faut yàlla amee fi léegi nag bàyyi fi ne yàlla la am na ñu ko woon ginnaaw am ñu ko woon kanam ñun nañ sant yàlla bi ñu yàlla boolee ci ñu jublu ci bàyyi ñes la ndax li li am solo mooy ñëw ci yàlla ñëw ci yonent bi ñëw ci cheikh ak ñëw ci baay gis nga ñëw ci yàlla rek am solo yonent bi yàlla nee na ko walaw annahum id zalamu anfusahum jaa'uuka su nekkoon ne gars yi suñ defee problème bi gën a rëy ci àdduna suñ tooñee seen bopp seen diggante yàlla su nekkoon ne suñ defee loolu ba pare jaa'uuka dañuy ñëw ci yow kon mbir bi baax ndax ñëw bi mooy am solo ñëw gi moo am solo seen Seydina Abubakar baayam dafa tuu ca fat ku makka fat ku makka makka yëpp nangu dugg ci lislaam euh, lu dul ñoo xam exception la mais abou Bakrin bayam liko yàlla may abou Bakrin bu len fàtte bayam da dugg ci l'islam yaayam dugg ci l'islam jabaram yeb dugg ci lislaam wujjam yi wujju jabaram yi dugg ci l'islam domam yi dugg ci l'islam mom ngeum yàlla ge foor ba lu ko jégg yépp ramassé na leen dugal ci l'islam Cheikh Tidiane man taxaqqa bi xaalatin la yakhlu min ahadiru kuy dund xaal te dëggu ci ku la jege rek da ci ko ciy sóob Abu Bakrin lépp ma dugg ci l'islam baayam jour Fatuma ka màgget la defoon màggeta màggeta màgg ba mënul dox aw bakki ne ko da nga jóg de da nga jóg de ñu ànd dem ba ci yonent bi nga tuub ndax baatu lan jaauka ñëw ataynaaka xam nga itiyaan bi ñëw bi moo ci am solo ñëw bi mooy nga ñëw ci sa jëmm ñëw ci sa xol yonent bi def ko gis rek ne ko waa Abubakar kii mënul du ko bàyyi nga wooma ma dem mu tuub mu ne ko laa anta ahaqu an yuta ilayka ya rasulallah yow yaa gën a yàlla ku ne jóg fa ñëw fekki la mu daal ko tuubal dugal ko ci lislaam ba pare Abubakrin daal di jooy yonent bi ne Abubakrin looy jooy waaye kii kay Abubakrin ku bëri ci loolu dafa am solo fi mu ne nii jamono nga gis nit rek bët yi tooy fekk yàllaa ko tax yàllaa ko waral wallaay luy jafe ku fi bëtam tooy rek yaa ngi dégg dafa gëj a gis ay mandat hmm? dafa ñàkk rek ñi seen bët dañ di war a tooy ngir yàlla min xasiyatillah mais Abubakrin dafa jooy yonent bi ne ko yow looy jooy yow Abubakrin mu ne ko li may jooy mooy damaa bëggoon tey kii ñëw di tuub du sama baay waaye sa baay abu taalibin abu taalibin baay yonent bi la abu taalib dafa dee ci yéeféer ci kàddu bi gën a siiw am na ñuy dox nag tey di wax dee na ci ngëm yàlla waaye ala kullin abu taalibin dafa dee ci yéeféer yonent bi saa sallam moo ko woo ci yàlla mu ne ah wa daawtani wa araftu annaka naasihun wa laqad sadakta wa kunta sama amina لولا الملامة أو هذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا والله واغما خمنا أن لقى وقت دقنا نمنا لما وقت لول مرة قايلة من قمنا يا الله ودعوتني وعرفت أنك ناس من ولك صدقت قم قم قمنا أنا يا وقت دق وكنت سمى أمين يا أمين كان بلا فن لو نح آه، ويكد بأحمد شوقي لن لوخون بوي وخا قريش من لقبتموه أمين القوم في سيناريو فما الامين على قول بمتهم لقبتموه ينك وهو امين القوم يا امين يا امين في صغير بوبو خلال يالا يا يو ياي كيني وورو دو فن من يالا يونينا ما نينكو دو ديك تي ينك وهو امين من فما الامين على قول بمتهم كو خمنا ياكو تدي امين كاي ولا ديلو ديكو تومال نك ديكو واخني لا غاي واخ دو ديك ابو طالب دفنا يونت ولا قد صدقت والله واخني ديك يالا لا يونت مسل خمتي يونت بي فن وكنت سما امين ياي امين ah waaye nag am na problème bu nekk mooy lawlal malaamat su ma ragal loon ñu yedd ma sama ginnaaw di wax damaa ragal dee moo tax ma dugg ci lislaam aw hisaaru ma sabbatin wala boog ma ragal ñu saaga ma sama ginnaaw la wajatta nii samhan bi zaka mubina da nga fekk walaay ma ma ma daal di gëm li nga wax moo tax abu abu taalibin dafa dee ci yëfir abu bakrin di jooy ne maanaam wajidtu anna alladi amana huwa abuka dama bëggoon fekk ki gëm tey du sama baay waaye sa baay la abu taalibin na Abubakar indi bàyyam baatu baatu ñëw bi laay wax baatu ñëw bi bàyyi woowee ci woote ci yàlla baatu ñëw gi daa am solo Cheikhaan def ne sa dattu bil fay di min ka mus ataytu ci benn waxi mus ataytu bi ma ñëwee tuub foofu soo koy jàng rek a mus ataytu bi ma ñëwee ngir mu am barke ityaan ñëw ci euh, lafzu bi am na ni koy jàngee mus atayta depuis bi nga ñëwee rek laa gën waaye mus ataytu parce que xëy na bàyyi woote na lu yàgg seexaan ngi toog di xaar di xool waaye li ko si jaaxal mooy diw de kenn gënu ko xam yàlla kenn gënu koo déggu kenn gënu ko nekk doomu waliyu kenn gënu ko nekk waliyu kenn gënu ko nekk xaafis kenn gënu ko nekk aalim waaye loolu lépp bàyyi na ko topp bàyyi na ko topp nit ku ñuul kii kon am na lu xew toog na di analyser di di xalaat waxam wax yi jaar diggante ak wul nax yi lettre yi ak wax yeeg wóy yi xeñul fii ci mbir mooma ndax wul nax yi macha allah moo njëkk a ñëw ci naar saabiqu saabiqiina wa cheikhu yasqi wa yudirul kubuusa tilwal kubuusi saabiqu saabiqiina mooy jiituñu jiituwul ku ñëw ci bàyyi wala naa ci naari moo la jiitu wa cheikhu yasqi boobu bàyyi ngi koosi yudirul kubuusa muy wëndeel kaasi ah tilwal kubuusi rek mu indi beneen wa kuntu li shurbil asiqiina mudira bàyyi dafa dina nee wala faydu wala meew ma nga xam ne wala góor yàlla dinaa man maa doon wëndeel kaasi di leen ko jox macha allah loolu nag amul nihaaya mais moo tax soo koy firi ban nga wax sa dàq bil faydi minka mus ataytu ba ma ñëwee waaye gis nga alxuraan lim may abdullah ibn ummi maktubi wa amma man jaaka yasa wa amma man jaaka yasa xoola rek yonent bi saa sallam dafa toog ak sanaajiidu Quraysh mooy kilifa Quraysh yi di waxtaan ak ñoom pour bëgg leen convaincre ñu dugg ci lislaam moo xam ne ñii suñ duggee ci lislaam mbir mi dana baax benn gumba gu gëm yàlla jóge fa la ñëw pour laaj ci mbiru diineem yonent bi wan ko ginnaaw ndax xam na ne kii gëm na yàlla ba pare soxlawul mun yàq temps bi naa na ma bàyyi ma waxtaan ak sanadidu Quraysh pour convaincre leen mu leen demal kanamam ñagasal ko ci waajooju di wax ak gars yi yàlla yedd ko ne abasa wa tawalla an jaahul ama xoolal rek yonent bi moo ngi ñagasal kanamam mu koy yaa ngi dégg de muy muy muy dëddu ngir gumba gi ñëw na ci moom yàlla nag ne boobu moo ngi wax ak gumba gi di ko takk ñoo amma man jaaka xoolal gumba gii ñëw ci ba ci neexul am maaman jaa ak xoolal bàyyi ci laay bi maanaam xel jaa aka mooy al jayatu al maji ñëw bi yasaa muy waaxu gis nga yasaa du doxinu ndànk-ndànk fas aw ila zikrillah gis nga comme que yaa ngi dem ci tudd yàlla mooy ba yàlla dafa utilisé baat bi ci fas aw fas aw ila zikrillah ci riwaayatu abdoulaye ibnu abdoulaye ibnu masudin إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله فامضوا بلغي لغاو رك موي فاستو وأما من جاءك كن يوم يسعى موغي واخو تبنين طيب، دو هو يخشى دفرق الله قال له المجيء لرسول الله والسعي إلى رسول الله أنكور تمت الخشر رجل يالله مقام يوم la abdoulaye bi ummi maktum boole moo tax mu daan nekk imam su yonent bi génnee madina mu teg ko mais almaji ñëw ci yonent bi alhaji Mouhamad Zeynab Niass euh, moom ak Baye Niass xam ngeen ne bokk benn Baye te borom xam-xam a ngi noonu borom xam-xam a ngi noonu Baye Niass nee benn bés ca Taïba Niassène boobu bayal nañ ko toolam ba pare mu ne leen bés pencum yàlla suñ leen laajee lu tax ngeen nekk taalibe Baye Niass lan ngeen di wax Baye laaj loolu Baye moo laaj loolu ñëpp noppi mu ne leen ngeen ne damaa dañoo gis alhaji Mouhamad Zeynab bu nekk sa taalibe moo ñu nekk sa taalibe maanaam li muy firi mooy alhaji Mouhamad Zeynab nekk sa sa sa taalibe yow moom jar na jar nga ñu nekk sa taalibe yow moom ku texe nga mooy kat faasa man kaana lahu fil mizan bi bàyyi waxoon ci yaa ngi dégg de ca Zaria yaa ngi dégg de xallaqtu fawqa Zaria wa qultu wajidtu law anni biha qad qiltu كبيرهم حبيبنا يهوذا قد فاز من كان له تلميذا آه. من من مانجي يكتي افيون تيم زاريا من اسكيت ورونا يندو في زاريا زاريا بين دكلا في نيجيريا diggante Abuja ak kan Kano fa Cheikh Haruna Rachid dëkk doomam a ngi ni muñ ji Haruna Rachid ma bàyyee ko ñaanal lan nga bëgg mu ne ko alxuraan doomam yi macha allah ñëpp moo ko alxuraan bàyyi teg loxoom ci bopp bi ñaanal ko lu mat juróomi téeméeri daara diggante Nigéria ak Kano benn taalib bàyyi dëjëm bi jour boobu soo ko gisee amul benn doomu aadama bu musa dee fii ci Sénégal fekk sëriñ la bu mag am dëj gu tol noonu te kale doo taalibe bàyyi muy ji Cheikhu Zamane ngi nii toog imaam la jumaa bu mag foofu ci Abuja nekk borom xam-xam nekk kat dafa jóge Nigéria démb moom ak Cheikh Souleymane Ibbi pour teew suñu gàmmu gi macha allah yónni leen Seydi Alhaji Atiku Alhaji Atiku suñu wëllëre la euh, xaritu Serigne bi la euh, Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Ahmed Tijani moo jël sama loxo ak loxoom boole ñu mu sàmm ko lër googu ba bi mu yégee gàmmu gi yàlla xam na ne man sax ŋaayiwu ma sama gémmiñ ne ko gàmmu gi ñëw xëy na am na ay taalibe yu nekk foofu yëgal ko ko mu ne dinaa leen daggal billet te période bi billet yi dañoo cher suñ la waxee di jëndee billet yi mu ne leen dinaa leen ko daggal pour ngeen dem teewal ma fa moo ngi noonu Cheikh Mounji ak Souleymane Ibdi am naa man jaa aka ku ñëw ci yow atay naaka alhaaj Mouhamad Zeynab lan la wax baay def ko ne atay naaka yaa qutbal anaami wa gawsahum mu midda rijaalillahi min saybi faydati nuridu tamaama al amri fi llahi kullihi وفي الحضرات الكل من دون مهلت الحاج محمد زينب من من يو باي نس لاي وخر من اتيناك نيو نتيو اتيناك بات اسيان بلا بغ خم نين خم يا قطب الانام يا قطب بندف وغوثهم يوم يرم بندف يالله مم رجال الله يوم يدل غور يالله من سيف فايدتي تي وامي فايدتي ما نا غور يالله ييب سيتي امو سي باي نس مو لني دولي سي يالله لول نك بوين بو خم سوخنا ني ليرو تي كو امنا كو كو واخ باي ديغ كو واخول دارا لي ني بن bàyyi ngi dund alaaji Mouhamed Zeynab wax ni bàyyi gis am na beneen naar bu jóge Mauritanie dafa jàkkaarloog bàyyi dafa yaa man amadda jami al kawni muswujida wala yura madadun min gayrihi abada amdaduna min siwaaka dahra qad qutiat wa nartaji minkum bi faydika al madada حتى يدوم لنا وصل الحبيب فقد أفنى الدموع وأدنى الأذن والجسد وغادر القلب في يأس وفي طمع لكونه اليوم ما يوجد لم يوجد وما فقد mu ne yow bàyyi ñes mi dolli mbooleem bindeefu yàlla gi waa ji li mu wax daa gën a kowe gën a rëy mu ne mus wujji daa depuis ba yàlla sàkkee bindeef bi ca aadama ba bés pencum yàlla mu ne ku dolli ku ci yàlla bàyyi la dolli waa naar bee ko wax du mën naa ko wax te naar boobu ko wax tuutiwul ci yàlla de moo defal raddu asinnatil awqaati an ahli sunnati wa rachad soo ci tiimee téere bi da xam ne kii waxam jar naa déglu mhm. moo defar alqanabil yadawiya fi dabi ani suufiya yam defar bëri na lool waaye yii rek laa ci cité soo ko xoolee da nga xam ne kii déglu ko jar naa bàyyi xel nee na sama bàyyi nee ne mën naa firi alquran ci xaala rajulaani ñaari góor nee nañ mu ne waaye man mën naa firi alquran ci xaala rajulun benn góor nee na bàyyi ma waxoon man nag mooy abdullahi waladul xaaj nga xam ne bàyyi nee ne nuróom amul ci kaw la ji moo ne woon mën na firi alquran ci xaala rajulaani ñaari góor nee nañ waaye moom nee ne mën na firi alxuraan ci xaala rajul moom doom ji li waral loolu mooy sëriñam bokkul ak sëriñu baayam sëriñam moo raw sëriñu baayam moo tax mu mën a wax lu baayam waxul xam nga Oustaz Barham Diop dafa ànd ak baay benn jotaay mu def benn kalima bu xam ngeen kalima mag Oustaz Barham Diop rek afsahil arabi wal ajab ku yàlla sàkk nga weex wala nga ñuul Oustaz ibrahim Mahmoud diom moo la ëpp fasaxa ci arab yi loolu moom Oustaz Ibrahima Diop moom kéemtaan la bu yàlla sànni bàyyi sànni ci kaw ji pour lancer défi ci adduna bi ku may tëkku xoolal ma xale bu mel ni nga indil ma ci sa ndax amul ci hadara ci hadara yi ci adduna yi sharqan wa gharban januban wa shimalan ci adduna bi xadara bu mën a jur ku mel ni Oustaz Barham amul loolu moom amul